médiateur de la république euh, sàkku ci njiitu réew Macky Sall mu xoolaat doxalin gi ne ak li mun taxew yëpp euh, nguur gi am na ci part de responsabilité bu mag a mag Mimi Touré moom itamit euh, sakku na ci njiitu réew Macky Sall mu taxaw askan wi ci seen càkkute fexe ba kenn ku nekk yëg ne am nga cër gu yaatu ci mim réew Karim Wade moom ñaawlu na doxalinu njiitu réew mi Macky Sall docteur Babacar Diop mi xam ne ñu ngi koy xupp ci jamono ji ngir faagagal ko yéen a Oumar Touré fësoon lool ci euh, dossier euh, kii di Ousmane Sonko mujjee naa tekki ndombol tànkam la mu gis moo ne daal dañ koy tàmbale di xooqatal bëgg a fanam euh, tey tamit faw mu démissionné ngir wattu kaaraangeem ak kaaraange njabootam sàkku na nag ci jaru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi mu tekki ndombol tànkam ak procureur na tekki ndombool tànkam ba ci jaru ngi ñu denk wàllub yoon wàllub 8 mars be gu ñu jagleel jigéen ñi jigéenu Sénégal xëy ko màggal ay dambooj fës lool ci assemblée nationale gamu am ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr fës eh, ci jamono ji tuuma yamu teg ci ndodd Ousmane Sonko waaye nag Diary Sow daanaka mo ubbi atum 2021 moom mi réeroon laata muy feeñaat 24 heures 24 heures Seydina Omar Ba Omar Touré lay wuyoo capitaine la eh, ci armée bi eh, capitaine de gendarmerie moom Omar Touré tekki na ndombol tànkam na tey jii dina jébal démission googe njiit réew mi Macky Sall ne newatul ci kaaraange ci dossier Ousmane Sonko bokk na ci tamit la gis moo ne daal mënut a sàkku démission jiitu réew Macky waaye nag am na sañ-sañ sàkku démission ministre de l' intérieur ministre de la justice ak procureur de la république sàkku na ci ndaw ñi ñu bàyyi fitna geek toj yeeg yooyu waaye nag ajuma ji ñu jëm mun naa leen fekk si ci mbeddu Ndakaaru ngir ñaxto ci lu tolluwaayu réew mi. Sud Quotidien bokk na ci ab dal tàmbale feeñ ci mbirum Sweet Beauté mi jur coow li léegi Ousmane Sonko deful ndànk mun naa tabbi ci euh, contrôle euh, judiciaire ndax dinañ ca yeggam déet euh, laaj la samp ci jamono ji moom dina ci jàkkaarloog juge doyen des juges ci bëccëgu tey ji lañ koy toppee bokk na ci mbirum viol. Dakar Times Dakar Times Seydina Omar Ba dund nañu ay bés yu méttee méttee ci mim réew mbirum Ousmane Sonko aji sar dem sax ba daanaka xajamal kaaraange gi bokk na ci doyen de juges d'instruction altine tey ji la fas yéene janook njiital Pastef Ousmane uh, Sonko lu ci uh, trouble à l'ordre public dañ ko ko teggil waaye nag lu ci wàllu viol uh, ba tey ñu ngi ko koy toppee kilifa diine yeeg acteur politique yeeg société civile ba ci ambassade yi ñaan nañu ngir jàmm dellu soit ci mim réew. direct news direct news ne Sénégal a ngi noonu mu ngi ci sous haute tension daanaka coow laa ngi ne cobboy Idrissa Seck moom gën naa dooleel gën naa taxaw njiit réew mi Macky Sall waaye nag mel ni kuy sànq Ousmane Sonko njiit maître Abdoulaye Wade fàttali njiit mi Macky Sall ne amoon na ay jamono Abdou Diouf dajoon na lu ne ci nguurug Abdou Diouf tëj na ko kaso waaye nag Abdou Diouf yéeneem doonu toon euh, fagagal ba faw Abdoulaye Wade euh, ba tax na maître Abdoulaye Wade bàyyi loo xel euh, kii di njiit réew mi Macky Sall Alioune Badara Cissé ne waxtu wi nag daanaka l'heure grave ndax dem nañu ba cin li baax na ba ku béer ga tëb li jaadu mooy ñu diisoo waxtaan déglu ndawu Sénégal ndaxte ji ku leen déglu am na buñ ca tënkoo eh, mun a itamit am ndam ëllëg ci Sénégal gu war a mun a jëm kanam xalif généraux yi wax nañu ngir dal mun a dellusiwaat ci mim réew Seydina Omar Ba critique ne Dakar foo tourné sa gët tegu ci euh, takk der lim takku ci ñoom ñu ngi ci capital bi armée gi sax wàllise na euh, ci mbir yi ngir mun a tax askan wi euh, ci seen moomel ak seen i kaaraange mu ngi ci critique tribune tribune ne altine gu nara doy waar bu ñu deful dang mun nañ caa tabbi tey ndax ñaxtu yi mun nañoo jolliwaat ñu ngi ci dem nag ci ndëgg sërëx ndax dañ ci dugam déet ci musiba googe tribune xëy du ñu ko yëggee am na beneen ndaw gu faatu bu démb ca jawbe eh, Sonko moom eh, fas yéene jàkkaarloog juge bi ci suba teel gi eh, bokk na ci tamit Alioune Badara Cissé sàkku ci njiitu Macky Sall mu génn wax ak askan wi. Euh, semaine vacances moom la ñu may école bi euh, njàng amul lu ko dalee ci altine tey ji ba samedi gi ñu jëm libération libération ne lu bëri nag moo wundu ci euh, démission wala boog nañu jëlee dossier ba ci juge Mamadou Seck njiital huitième cabinet daal di ko jox doyen des juges ñeel mbirum suite beauté yéen cabinet nag lu bëri nag moo ca soqeeko Aline maître Bamba Cissé di avocat Ousmane Sonko adduna ci trouble à l'ordre public gañu teggil Ousmane Sonko ci ci dossier am maître Abdoulaye Wade ñaax na njiitu réew mi euh, Macky Sall Badara Cissé médiateur de République euh, jàpp ne euh, njortoon na ne Sénégal mun naa yegg si fii tey ndax ba ba léegi dafa bëri lu askan wi di dund ci seen xol te diisoo amul waxtaan amul ci diggante nguur geek askan wi. Mhm. ñu wax léegi ci réew mi. réew mi yéen kaay di kat ak ñun ci trouble ordre public toppeetuñ ko njiital Pastef Ousmane Sonko bokk na ci ay jege ñaaleem sax ci ñàkk doon wattul kaaraange ji gi euh, jëlee nañ leen ci seen garde à vue ba waaye terewul Ousmane Sonko dina wuy ji yoon. Euh, tey euh, dina jàkkaarloog juge bi lañ koy toppee mooy euh, viol mbirum siif goo xamante ne moom la ko Adji Sarr tuumal ak faat bakkan mu ngi ci réew mi quotidien li quotidien li quotidien ne li xew ci mim réew jaaxal lool Alioune Badara Cissé médiateur de la média médiateur de la République gis ne seetaan gi dafa war a dakk ndax ci jamono ji réew mi ëpp na seetaan buñ ko buñ ci wéyee mun naa jur loraange musiba sàkku na ci nguur gi ngir mu gën a góorgóorlu ci askan wi góorgóorlu tamit ci ndaw ñi di leen déglu saay su ne na njiitu réew Macky Sall yeewu te xam ne bu yeewul ci teel balaa muy xippe ay gëtam réew mi mun naa soobu ci musiba mbaaba kumba mu ngi ci biir yéen a kaay l'évidence l'évidence njiitu réew mi Macky Sall mel ni nag ku bëgg a woote jàmm ci dossier bile Euh, discours à la nation ñu ngi ko koy xaarandil altine tey ji dina ci ginde askan wi maître Abdoulaye Wade ginde na njiit réew Macky Sall ca la a daj euh, ci nguurug Abdou Diouf gawoon ne Abdou Diouf euh, fexeel na ko lu ne waaye nag yéeneem doonutoon sax ngir sànq Abdoulaye Wade ba faw alin Badara Cissé ne ndaw ñi faw ñu leen di déglu ñuy wax seen góomu xol ngir ñu xool ban yoon la ñu jaar ngir gën a ñongal suñu réew. Les Échos Ousmane Sonko tey ji lay xam ëllëgëm na muy mujjee ca kaddu tuuma jëm ci wàllu euh, viol gañ koy toppee doyen des juges euh, dalal na ko tey ji ci suba si euh, maître Abdoulaye waat moom dellu soit na ci njiitu réew Macky Sall xamal ko ne am na fi ñoo xamante ne daanaka ay juge la ñu yenn say boo leen toppee ñu mun la itamit gasal ndëgg sërëx goo xamante ne ëllëg yow rek yaa ci ay des moytu lu bëree bari ak ñi nga xamante ñoo yee fitna te ñu jege la lool te say su ne ñu lay xàllal yoon mu ngi ci biir yéene kaay bi Vox Populi médiation waxtaan ya ñu ñu tàmbalee amal ci dossier Ousmane Sonko euh, bokk na ci sax euh, garde à vue ba euh, daanaka mu ñeel ay jegeñaale Ousmane Sonko daanaka newatuñ ci section de recherche trouble à l'ordre public ba loole féete na boor université Cheikh Anta Diop moom guddik démb étudiant yi nelawuñu kaddu doon benn vive Ousmane Sonko bokk na ci ne démocratie doon lu leen yitteel lool ak jële fi njiit réew mi Macky ne mbirum Sonko massage massage massage pour la paix eh, fexe ba diso ngir jàmm ne ñooy Aline Badara Cissé doon lu ko yitteel Mimi Touré eh, ba ci kilifa diine yi eh, woote nañu jàmm ci réew mi ba ci jigéen ña ca Casamance ne bu ñu sañoon daal da jàmm googe dellu soit ci mim réew ndax jàmm ci la lépp xajte nañu tappe xol yi xam ne Sénégal gile dara war ñoo gënal lu dul Sénégal ngir mu jëm ca kanam las njiitu réew mi Macky Sall mel na ni nag yolomal na mbir ngir jàmm mun a dellu soit ci réew mi ndax trouble à l'ordre public ga ñu doon toppee Ousmane Sonko ku ñeneen ak ñeneen loolee teggi na leen ko waaye Ousmane Sonko même tey jii dina jàkkaarloog doyen des juges xalif généraux yi adduna ñu ci tolluwaay réew mi ñaan nañu njiitu réew mi Macky Sall ngir mu fexe daal ba jàmm mun fe nuyoo si waat. le mandat le mandat ne sortie de crise au Sénégal fexe ba jafe-jafe yi la mun teggeeku jàmm dikkaat réew mi médiation yaa ngoog ña ngi cay dox tànk jàmm Alioune Badara médiateur de la République ma ngi cay dox tànk jàmm euh, kilifa diine yi demb yi tamit na nañoo ak taskatu xibaar yi ci institut islamique jàmm la ñu woote ci réew mi mu ngi ci le mandat l'observateur 8 euh, mars di bëccëg gu ñu jagleel euh, jigéen ñi 8 mars gii nag yemook coronavirus yemook i tamit fitna gii ne cobboy ci mim réew armée gi moom mu ngi ci Ndakaaru la xew ca jaww beeg fitna ga fa am a kaabi duñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk jigéen ñu ñu jot a ràññee ci xeexu mbas mi di coronavirus yéene kabi dikkaat na ci xëy di jaajëfal di tamit delloo njukkal bépp jigéen ci addina gi rawatina jigéenu Sénégal. le soleil le soleil euh, manifestation ñaxtu yeeg yi fi am fan yi ba tax na ñu ngi woote jàmm ak boolewaat xol yi xalif généraux yi yebal nañu ay ndaw démb jot nañoo janook taskatu xibaar yi njiitu réew mi Macky moom ñu ngi koy xaar mu amal déclaration ci bëccëgu tey jii eh, bokk na ci garde à vue bu Ousmane Sonko gañu eh, teggil tege ko wet eh, caméraman baak mm, ñaw doon wattu kaaraange Ousmane Sonko daanaka ne wattuñu ci garde à vue sunu lambo. Alioune Seye euh, 2 bokk na ci joxe na xalaatam ci combat gi war a dox ci diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène naka la lak de Guiers 2 war a bëre ngir mun a euh, daan Eumeu Sène jël gu set wecc moom la Alioune Seye 2 xëy waxtaan ak suñu làmb yema fu ñu jeexale xetu yéene kaay tënk la woon incha allah daañu ci diggat na mu gën a yaatoo Seydina Omar Ba. di sant di la gërëm Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokk yi euh, ci foofulee ci la ñuy yëkkate jotaayu xibaar yi xam naa ci kanam tuuti rek incha allah rabi daañu leen euh, dégtal euh, seen édition spéciale mu soxal kon mbiru Ousmane Sonko. ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laan waa mi naan électricité générale si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër.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 ak bi ci ndem. ndax ah, lii am lépp tawfeex sëriñ bi moo la ko may. gën noo gàtt noo tawfeex bi.